premier ministre ndax waxtaan woowee Serigne Moussa Nawel Mbacke fekke woon na ko ak yeneen ni seede waaye nag bëri na ay jege ñaale Macky Sall yoo xam ne bi ñu déggee ñu ne Macky dafa bëgg a jël Idrissa Seck def ko premier ministre mu jiite gouvernement bi am na si ñoo xam ne dañoo mer ba futo journal bi di réew mi quotidien nee na njiitu réew mi dafa bëgg a xaajal yoon 2024 Idrissa Seck yéen kaay gi di direct news ñu xëy fekk fa Mouhamadou na Mamadou Lamine Diallo lay proposé député yi dañoo bokk ci kujje gi ngir ñu ñëw fekk ci benn bokk yaakaar loole nag Mamadou Lamine Massaly daf ko weddi ba tëdd sa naaj waa ndax nee loole loolee ay sos la te nag bu ñu waxantee dëgg Mamadou Lamine Diallo bu tekki moo tekkiwul dara ci lu jëm ci wàllum politique te nag fàtte xëju fi 2012 fii la nekkoon doon ma xar yàpp Macky ngir ñu jël ko def ko ministre des finances la ca xew lépp xam nañu ko te nag Macky Sall amul jotama yéen kaay gi di réew mi ko di jenqëy dañu xibaar naan ñu lu jëm ci candidat yeew yi walloo ba léegi ak déggoo amul seen biira yéen kaay gi di source nee na Ahmed Aïdara moom nag nee na bu ñu ko jiitalee def ko candidat ci biir coalition Yewwi Wallu ngir na nationale dina am ñeenti député yoo xam ne dina bokk ci Benno Bokk Yaakaar yu ñëw votel coalition Yewwi ak Wallu yéen a kaay gi de la Tribune nee na groupe parlementaire yu bëri yi loolee nag ci bopp nag Sénégal moo ci nar a loro ndax groupe parlementaire yi lu mu gën a bëri maanaam xaalis bi gën a bëri te nag loolee askan wi ñoo ci gaañoo ba tey ci biir journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy député yi maanaam nag waru ñoo amul wala ñuy dund nag ci li nga xam ne mooy ndoddu askanu Sénégal cër na bokkuma nee na opposition opposition bi ñoom ñoo war a liggéeya ngir am benn candidat yéene kaay gi du source nee na coalition wàllu Sénégal ñoom danañu am ab groupe parlementaire coalition yeeyu askan wi ñoom ñaari groupe parlementaire yéene kaay gi de la témoin nee nag tong-tong la ba ci journal bii di laas avenir PDS jamono ji nag tàq suufa ndax ñi nga xam ne ñooy démissionné bëri nañu lool te ku démissionné Karim Wade ngay tuuma la Karim mi nga xam na ci moo sa doomam jee maanaam Karim Wade ak lu mën a xew nag lépp Abdoulaye Wade moo ko mooma yéene gi délibération nee na ginnaaw asu soxna mi xam ne moo doon am doom ca diwaanu Louga ñàkk bakkanam am na keneen koo xam ne da doon am dooma mujjee naa ñàkk bakkanam moom ak liir bi di Mami Diallo ca diwaanu centre de santé bu Kédougou yéene kaay gi nee na lu moo ci ama ndax Mami Diallo mi nga xam ne moo ñàkk bakkanam ci centre de santé bu a nag da ngay am dooma maanaam normalement daal kenn du la na soxna si wax ba sonn nag maanaam ñu ne ko soxna si yow maanaam da ngay am doom normalement soxna si nag lu tolla si ñetti waxtu yoo xam ne maanaam ngir mu am doom lu ne dañ na ko ci doom ji nag ba muy génn xale bi bopp bi rek moo génn maanaam ñu koy jéem ma forcé far nag mu daal di nag dagg la sa des des ca biir ba la sa des génn ñu mujjee ko nag opéré génn li nga xam ne moo desoon ci biir bii femme bi nag dafa ñàkk bakkanama yéen a kaay gi ñi nga xam ne ñooy médecin dañu ko bëggoon a nëpp nëpp la waaye nag dafa am koo xam ne moom moo info formé procureur procureur yebal commandant bu gendarmerie commandant bu gendarmerie nag bi mu demee teg na loxo ñetti médecin yoo xam ne jamono ci ñoo ngi ci garde à vue yéen kaay gii de la réveil xëy di ñu xibaar naan ñu sa Casamance ndax yëg ngeen ne mango ju bare bare bari ma ngi fay yàqu Casamance mango ju bari moo fa ñor waaye nag gisuñu kenn koo xam ne ma ngay jënd mango joojee nag maanaam état bi bi nga xam ne nag moom la waroon a defa muy politique bu jëm ci wàllum transformation ca Casamance loolee moo la ji échec moo si ama moo tax nag jamono ji mango ji